gërëm nañ leen sant nañ leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet www.senkaddu.sn euh, tey nag ñoo ngi fii ci euh, Wakaam cité avion plus précisément ñoo ngi fii ci benn daara bi nga xamante ni euh, dafa tudd daara Mouhamad Lo ñu fas yéene ñëw waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy sëriñu daara yi pour ñu wax ñu rek li nga xamante ni ñoo ngi koy gis ci daara yi ci fan yi ñu génn rawatina nii bu ñu mujjee gis bokk ci diwaanu Koki Euh, vraiment ñu am ñu ko ñaawlu am na ñoo xamante ne aussi bëgg nañ nous exprimer wu amuñ fenn fuñ ko waxee ba tax na seen kàddu déplacé wu fas ñoo waxtaan ak ñi nga ñoo di sëriñu daara yi wax li gis nañ ko te c'est très important ma ci ànd sama caméraman euh, di Bokar Dieye ñoo ngi fii nag ci Wakaam bu ko defee rek dañuy daal di euh, sëriñu daara mu expliquer ñu li nga xamante loolu la jot gis ci Koki yu mbokki Sénégal yëpp rawatina euh, site bii di seen kàddu wax dëgg yàlla gis nañ liggéeyam bu rëy bi nga xam ne loolu lay def ci rawatina ci internet bi ñu ngi rafetlu bu baax euh, seen liggéey euh, seen déplacement tamit ñu ngi koy rafetlu ngeen ñëw fii tey ci ëttu daara pour jël si information bi nga xam ne ut ay leeral ci daara ak li nga xam ne moom moo xew ci fan yi ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di wax ne daara Euh, dafa am nu muy doxee depuis muy depuis yàgg na depuis yàgg na ñi ngi commencé di euh, di euh, gis ne alquran nit ñi ñu ngi commencé di ko tuutal di ko ñàkkal tuuti fayda wala di ko ñàkkal fayda sax lañuy wax waaye boo xoolee yàlla mi nga xam ne mooy moo wàccee alquran moom moo koy garantil boppam yàqkat yi bari nañ heure bu nekk yaa ngi dégg waaye man li may wax rek toujours mooy alquran mooy téere bi nga xam ne moom la yàlla jox ñu muy message yoo xam ne dafa jóge ci yàlla muy message yoo xam ne dafa jógee ci yàlla ñëw ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam pour muy solution nekk nekk solution ci àdduna pour nit ñi mën ci jàpp sukkandikoo si pour mën a defar seen dund ci àdduna ak si ak si loolu nag waral ñu gis ne faw ñu samp ay daara ci ci àdduna yëpp pour mën a yar njaboot gi daara yooyu nag am na muy doxee ku xam daara ku nekk ku ku jaar daara de laa wax xaw ma ku jaaru daara waaye ku jaar daara ku nekk di nga xam ne daara du du du du bërëbu caaxaan li xew nag fan yi nit ñi di ko waxtaane mooy wax nañ li xew ci euh, fële ca Njaañ ci wetu kokki région bu Louga li fa am am na waaye lu mën a xew rek mooy nañ xam ne maa ngi moytuloo ñi nga xam ne dañuy profité pour wax occasion ci wax ci ci daara te ñu xam ne loolu mbir la moo xam ne ñun ku nekk jaar nga ci loolu te loolu mooy li defar suñ dund xam nga boo xoolee ñu wax nañ jéng nañ xale yi lu nekk ñu wax ko ci euh, ndeysaan euh, jot naa ci rek démb kàddu yoo xam ne maa ngi sant ki ko wax lool mu ne lu tax ñuy xool jéng bu ñuy def taalibe bi ci daara au lieu que ñu dem bango xool li fay xew parce que loolu formation la boo xam ne formation privée la daara dafay former xale pour di ko di ko jàngal di ko yar loolu loolu moo tax a jóg daara kon nag war nañ xam ne daara du jëfu caaxaan ku nekk rek na moytu man maa ngi moytuloo ñuy attaqué daara ndax ñi bu ñu attaqué daara alquran lañ attaqué de eh, lañ attaqué de yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ attaqué loolu nañ ko xam maa ngi moytuloo ñuy attaqué daara ñëpp képp koo xam ne yaa ngi wax lu jëm ci daara lu ñaaw di ko wax sëriñ daara na la leer ne bés dana jot danañ wàqi ba mu xóot ñu takk say tànk sàng la dugal la ci biir suuf bu la àdduna jay mukk bu la télévision yi tiim bu la am adduna jaay mukk ba nga jaakaar ne lu la neex nga war a mën a wax daara ba tax sëriñ daara lu la neex nga wax ko sëriñ daara def daara yi defuñu dara jàngale quran rek la ñuy def kenn fay leen ñoom seen ñaq rek la ñuy dundee yàlla rek lañ yaakaar yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam lañ fa nekkee te al a warasatul anbiya loolu na ko ñëpp xam borom xam-xam yi ñooy ndonul yonent yi voilà kontaan nañ ci euh, kàddu yi nga xamante ni euh, loolu la Baye Fall wax euh, ki nga xamante ni kàddu yi boo ko dégloo sax nga xam ne lii kàddu nitu sëriñu daara dëgg moo koy wax parce que kaddu yi fasaana te pii tamit dégg nañ ci dégg dëgg dëgg dëgg nag lañ ci dégg neexul ba neexul ba tax na rek dañuy dalal ki nga xamante ni moom moo di mu Lo mu daal di ñu ñëwal ci jeng jeng bu ñuy bu ñu déggul olof comme sama genre yi mooy yeew nit ki maanaam takku ko. moom day ñaawlu li nga xamante ne nii tey jii nii euh, def nañ ko maanaam plainte ñi nga xamante ne ñoom ñooy sëriñu daara bi ak euh, waajuru xale bi euh, moom nee na ci loolu la ñu bëgg a wax ba tax na rek dañuy daal di tàllal suñu micro jox ko ko mu waxtaan ak ñun ci loolu te defe nañ ni dinañ ci dégg tamit lu am solo lool. ba tax na groupe seen kàddu comme niñ leen ko waxee dinañ leen toppal lépp loo xamante ni actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ba tax na rek dañuy jox ki nga xamante ni moom moo di Mouhamed Lo mu daal di àddu ci kàddu yooyu. ñaawlu rek euh, li nga xamante ni tey moom la ñenn ñi taxawoo daara rawatina daara bii nga xamante ni mu ngi fee si euh, Njaañ ñu jël fa ay euh, nit ñoo xamante ni tey dañuy yëngatu si alxuraan fas leen a noot. ndax lu jiitu loolu am na si benn sëriñu daara boo xamante ni barki démb Njaay la nekkoon Kër Masaar ñu téewoon ko si lu si lu si lu demee nii ñu koy naqarlu pare guñ ñu di la tegaat si lii. kon nag su boobaa wax dafay jot ñu sëriñu daara yëpp jog xam ne tey ñu ngi leen di bëgg a euh, fitnaal ñu ngi bëgg a nasaxal alquran waaye loolu dina jafe. dël ñu ñëw si kàddu li wàllu li nga xamante ni maanaam mooy jéng bu ñu waxee jéng mooy xale bi nga xamante ni tey waajuram bëgg na def si moom alquran nga xamant ni soxluhu dara si moom lu dul mu nekk jullit xàqan nit ki nag mënoo nekk jullit mukk lu dul ne da nga jàng alquran te fan ngay mën a jàngi alquran mu des sa dënn mooy fi nga nekkee xale borom xam-xam yi nee nañ alquranu xale mu ngi mel ni euh, ciment bu tooy nga rëdd fa alquranu mag mu ngi mel ni ngay rëdd ci ndox kon waajur bi nga xamante ni tey dem na ba xam loolu mu xam ne xale bi si ndawam la war a mën a xamee alquran mu jël ko fi mu nekkee ndaw yóbbu ko pour mu jàngi alquran fi mu demee di jàngi alquran xale ku ne xam ne dafay topp ba bakkanam léegi xale di nga ko yóbbu mu jàngi du bëgg a jàng même soo ko toppee si ñàkk a bëgg jàngam googu dafay mujj su màggee yow lay def noonu yow mi ko toppoon si loolu su fekkente nag fitnaal nga ko si bañ jàng googu noonu nga wan ko na ko tey man jàng bëgg si yow su màggee yow lay def soppe yow mi ko doon si loolu ba tax maanaam li indi jéng jéng mooy xale bi nga xamante nanguwul jàng dafay dem di taxawaalu ji doo xam fu mu nekk waaye juróom doo xam fu mu nekk yow sëriñ bi doo xam fu mu nekk nga ne tey balaa muy sànku si àll bi ma jëng ko du pour soxor du pour lenn dañu indi leeral si loolu léegi jéng gi nga xam ne ñu ngi ko ko jéng bu dawee dem si àll bi mën na feebar si àll bi sàccam xale yi dégg nañ ko si dëkk bi lu nekk ñu ngi koy dégg ci dëkk bi léegi nag pour loolu yëpp bañ koo dal nga téye ko jéng ko toog ak moom di ko surveiller saa su nekk du loo xam ne da nga koy dóor te ni nga ko jéngee noonu dafay jàng bu baax di lekk di nelaw comme ñi moromam yi lan nga ko xeeñ génn rek nga ko xeeñ parce que bu génnee du dellusiwaat comme moromam nu ñu dellusee mais amul kenn kuy jéng euh, taalibe ngir di ko soxore wala leneen. moo waral jéng te jéng ba xamante ne moom lañ koy jéng mëntu mënut fa jógee mukk ba nga xool tànk yi gis ne kii mos nañ ko jéng déedéet du def benn effet fu mu nar a defee effet fu nekk da du def effet sax. parce que balaa muy àgg foofu dañ lay surveiller comme ni nga xamante noonu la ñuy noonu la noonu ngay surveiller ñeneen ñi ñu gis ne tey su fekkente ne dañoo dem ba ñaawlu loolu jël sëriñu daara ba dem di ko tëj ji te ñu gis si prison yi ñoo xamante ni dañ leen jàpp ñu dañoo def ay dégâts tëj leen ñu fay dee si biir prison bi lijjanti wuñ dee googu noonu ñuy lijjanti ki nga xamante ni tey ñu ngi koy yar si diine wax dëgg yàlla loolu dafa jot nit ñi def si ay yitte bu baax a baax a baax a baax. Serigne Mountakha yal na yàlla yal na yàlla yàggal ko fi may ko wér ak wérle réaction am si daara ji si daara yi daf ma neex lool ak mbooleem koo xamante ni maanaam indi nga si sa xalaat ñu ngi rafetlu xalaat yi nga xamante tey borom xam-xam yi jël nañ ko def ko si ñooñ daara ngir lan ñu dimbale ñooñ daara ba nga xam ne parce que dimbale ñooñ daara mooy dimbale diine l'islam inna diina ànd allahi lislaam benn diine moo am mooy diine lislaam suñ ko suñ ko bëggee naxasal fan lañ jëm nasaraan bii ñu fabriqué buñ ko bëggee topp ñun ñëpp buñ toppee nasaraan fuñ jëm dem naa ba seetlu Sénégal benn affaire cinquante personnes yu bëgg a jàng français ñu tabaxal leen école ñu gis téeméeri nit yu taxaw bëgg jang alquran alxuraan ñu ne suñ yoon nekk si ñoom kanaa ñun ñëpp duñ ay sénégalais ak sénégalaises ah nga gis nit ñoo xam ne boo demee Saalum fi ni nekk nii dëkk boo ci dem samp nañ nax nañ leen samp fa école français daara ya fa nekkoon yep nasaxal nañ leen waaw léegi nag ñi nga xamante ni def nañ effort di continuer ak seen daara di yar doomi julliti ñu jël intention ñooñu tamit nasaxal leen ñu bàyyi alxuraan di fu ñu jëm maa ngi ñaan lillahi wa rasuli ñi am ñi nga xamante ni tey ñoom la yàlla dénk kàddu nañ génn wax ak ñi nga xamante ni ñoo ñoo nekk ci lii di wax ñi mën a wax ñi mën a wax ci daara li nga xamante maanaam ñooy mooy daara nañu wax ci loolu ala rawate ñi nga xamante nii xamuñu si dara dégg naa si benn kàddu ku si mel ni Mamadou Mouhamed Ndiaye ak Ndoye Bane ñu ne ñi nekk si daara yi ñoo yàq daara yi wayansi billah nit mën na nekk si daara di sol si ay doomi jullit alquran di mokkal alquran nga ne kii moo yàq daara kon ana kii defar daara kon pour Sénégal bii ñuy def si TFM ak concours yi senegal seen doom yaa ngi koy génn di dem si euh, bitim réew di defi ay concours di ñëw di jël ay ndam ay ndam di ñëw fii di ko indi Sénégal fii nii ah? loolu mu ngi mel ni tey équipe nationale bi nga xamante dem nañ dem footballé indi coupe du monde ci fierté Sénégal yëpp la waaw léegi su fekkente ne tey kii dem na jàng alxuraan ci àll bi indi ndam indi ndam euh, Sénégal si ndamoon alxuraan ndam lu gën a rëy ndamoon alxuraan am na ah gannaaw topp nañ football mënuñ ci am dara topp nañ leneen mënuñ ci am dara bu ñu ne am ndam ci alxuraan duñ topp alxuraan di Sénégal yàlla Sénégal yàgg nañu am ndam ci alxuraan boo duggee fi si mel ni kër naa Cheikh Ibrahim xale lum tuuti tuuti tuuti tuuti billaahi la si boo ko tërlu alquran mu tër la baqara ba naas si njàngin bu neex njàngin bu neex sax ah buñ demee ba nga xamante nag fi mu nekk nii dem nañ ba bëgg ñu xeex ba bëgg ñu not si loolu noonu su boobaa wax dafay jot. demee ba 11 ci bëccëg 10h si guddi taalibe du ko nee si àll bi boo fa nee bu nguur gi loolu moom mën nañ see bay waar ndax bu ko defee nañ jàpp si loxo taalibe bi rek dem ci daara ji benn sëriñ bi contrôle lu daaram wala taalibe yi dañuy taxawaalu ndax 10 heures si guddi taalibe du ko du ko du ko taxawaalu 11 heures si bëccëg taalibe si daara ji la ko fekk 3 heures si bëccëg si daara ji la ko fekk heure yooyu mooy heure yi génn te daanaka 30 minutes une heure temps nga dem doxi si soxla dellu si daara ji jàng kon in uridu ila l islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank Thank you.